parce que HLM Padoua mi mu 1970 ba tey la HLM Padoua existé donc 51 ans ba tey ñu am ay maire yoo xam ne respecté wuñu commune bi respecté wuñu cité bi parce que man jalousie laa ko tuddee tey boo doon wër zone 7B bi fii rek moo fi des ay espace public te espace public yii ngeen di gis espace vert la cité yi ngeen di gis ay maison la 316 maison 316 maison bu gis ñun ñëpp fii la ñuy daje lii la ñu am lii lii la ñu am kon ñun ñëpp fii la ñuy noppalu mu am nag histoire boo xam ne c'est répétitif moo tax tey cité bi ñëw tey di wane ni moom tey kontaanul lii sama ginnaaw te ngeen jël ko mooy skate park dafa am ville de Dakar muy bartelemi ak ki mu ki euh, son euh, son prédécesseur Khalifa Sall ñoo ñëw présenter le conseil de quartier te conseil de quartier c'est un démembrement de la commune man musuma gëm conseil de quartier parce que conseil de quartier lu ñuy wax branche la garab boo xam ne conseil de quartier day waxal commune donc loolu man lantinoor laa koy tuddee ñu ñëw présenter un benn maquette boo xam ne ñu espace bii ngeen di gis tey mooy Euh, nu mu tudd édifice boo xam ne benn la fi en Afrique de l'Ouest lii boo demee Casamance di nga fa fekk lu ko gën a rafet kon bu ñu nee Afrique de l'Ouest bii moo fi dàq loolu ay sabotage la léegi nag ba ñu ñëwee ndekete maquette bu ñu jox ak li ñu wan du benn ñoom lu ñu bëggoon le fait nit ñi ne rafet na rek ñu dem def lu ñu bëgg loolu tey moo indi tey cité bi yëpp taxaw wane ni ñoom kontaanuñu d'abord pour nax bi nga xam ne moom lañ ñu nax parce que proposition bu ñëkk rond bala ba la ngay gis c'était prévu pour ñu def ko fa moom la Diène Farba Sarr def ay jardin ñu joge foofu ñu dem HLM Grand à face stade bi ba ñu demee waa HLM Grand génn xeex ak ñoom ne leen lii du fi am alors ñu ñëw naxanteeg la commune de Grand Yoff pour faire plaisir au prince muy Khalifa Sall ñu ñëw indi ñu ko fii te ba ñuy ñëw liñ ñu waxoon ak li am du benn li ci gën a garaaw nag parce que tey li tax indi collectif yëpp taxaw dafa am loo xam ne skate park la ñu wax à la lu bëri ngi ciy feeñ parce que am na concert bu war a am ñëw muy place publique urbaine nest boo xam ne dafa war a ñëw moom euh, moom lañ fi bëgg a def kon ça veut dire la ñu waxoon ak li commencé am du benn fii c'est près ci cité bi la ñu dëkk léegi nag superficie bi nga xam ne moom lañ leen joxoon ci skate park bi commencé nañ ko violer pour lan def fi benn stationnement maanaam parkin te parking bi dañ ko mus a bañ parce que ñun dafa am ñoo xam ne ça fait plus de cinq ans ñu ngi xeex ak ñoon mooy transport irrégulier yi muy war gaynde yi ñu ngi dugg si cité bi commencé yàq HLM Patte ñooñu dañu fay ci wéyu béy ñu wax ñu ni seen maire mu ngi ñuy préparer fii si jardin yi ñu defal ñu fi benn parkin loolu nag y avait mois ñu jàppante si ak commune ne ko fii HLM Patte d'Oie fii du euh, nu mu tudd boo maraîchère lii ñu fi am histoire boobu moo indi léegi nag bu ñu gisee nit ki ne la jox ma skate park nga jox ko skate park ba pare mu ci indi espace di ko pavé pour indi parking kon ça veut dire que parking ba léegi à tout instant mun na ñëwaat donc loolu mooy euh, nu mu tudd 1200 mètres carrés yi ngay gis moom la cité bi di réclamer parce que la cité a un projet ñun yor nañu projet boo xam ne projet de la cité la mënuñu concevoir fi ñu toll ñun ñu moom suñu moomeel ba pare ñoom ñu defar li ñuy defar ba pare yëkkati benn maison de culture boo xam ne DJ Audi moo ko dirigé indi ko ñëw tegal ñu ko fii avec son équipe loolu la ñuy wax gestion bi nga xam ne dañu bëgg gën a jege gën a yéey parce que loolu constitution bi moo ko wax nee ne meññeeñ bu feeñee ci bërëb balaa kenn di si bénéfice ñu fa dëkk ñoo fay ñëkk bénéfice loolu moo gën a logique léegi nag ñun mënuñu ñàkk fayda ay jàmbur di jóge fu leen neex ay jàmbur di jóge fu leen neex ñëw ba fii di ñu wan ni yéen tekkiwu leen defu leen dara dinañ ñëw ba seen moomel teg fa leen neex te du ci mun dara lii nag avertissement la parce que li ñuy def waxuñu parce que bari na ay fee yu bari du skate park bi kese am na benn espace boo xam ne mu ngi fële dañ ñu ko ab jox ko usine boo xam ne pavage lay defar usine pavage bii di defar dakaar fii la nekk HLM Padois suñu jàq bii matul mënuñu ko pavé Samba Alam usine pavage bi dëkk sa biir kër di servir jàmbur loolu la ñuy bañ kon dafa am yoo yu bari yoo xam ne ñu ngi koy subir ci ci biir cité bi bari na ci espace boo gis ñoom ñu ngi koy récupérer di ko dugal foo xam ne fu leen neex léegi nag ñu ne trop c'est trop parce que loo gis dafa am limite léegi nag lii ñu def premier pas la avertissement parce que li ñu bëgg wax yëpp amul parce que Aslem Padoua benn ñun lu ñu gën a métti si kii parc bi mooy agression bu mu njëkk def environnement environnement bi dañ ko agressé parce que ñii dañu mel ni c'est pas des xamuñu si écologie li mu wax xoolal tàngoor bi ñuy rey ñun ñëpp c'est parce que garab moo fi amatul autoroute bi pollution kese lay joxe léegi lépp lu mu sànni garab yi ko doon absorbé yëpp dagg nañ ko ba nga xam ne léegi mbir bi day ñëw di ñu offensé direct est-ce que loolu ñooñu bu ñu muusoon war nañ def loolu ñun dañu bëgg ay ay représentants yoo xam ne au moins dañuy respecter nit ñi parce que un maire c'est un élu un maire c'est un élu bu mandat jeexee dafay dem du ñu yàlla du ñu yonente léegi nag ñun lu ñu leen di wax HLM Patte d'Oie jël na destin en à parti partir d'aujourd'hui ci presse bi jël nañ suñu destin en main à partir d'aujourd'hui à parti de maintenant ñun ñooy wax commune lu ñu bëgg mu def ko lu ñu bëggul du fi am te d'ailleurs espace bii ngeen di gis on va en discuter parce que lu ñu ci intéressé moo les tubaab parce que lii tubaab yee ko financé te tubaab yi bu ñu ko financé il sont pas fous ou waruñu mun a nangu ñoom ak li ñu bëgg ci écologie war a mun a seetaan ci jamono yi nga xam ne reboisement foo dem ci àdduna bi ñu ngi naan ñu ngi saxal ay garab ngeen ñëw fekk garab yoo xam ne plus de 40 ans ngeen koy dagg est-ce que loolu c'est sérieux kon nag ñuy waxaat maire ñu ngi koy avertir moom Barthélemy d'abord na ñëw dal ak jàmm HLM Patte mais na xam ne ni HLM Patte d'Oie kontaanuñu kontaanuñu moom soo maire xam na ni on n'est pas li si des nag parce que tollaguñ si gatsa gatsa mais avertissement la le fait que ngeen nax ñu ne ñu euh, édifice bii moo daq ci Afrique de l'Ouest benn rek la am mu ngi mu ngi Abidjan te bii boo demee jam Diamniadio gis lu ko dàq ëpp ko fuuf kon nag loolu sabotage la léegi nag lu ñuy wax ñun HLM Patte pare nañu à partir de maintenant dinañu commencé nag teg suñuy plan te chaque plan comme ni ñu ko defee presse bi ñu remercier leen taxawaay boobu la ñoo am du ñu dellu gannaaw nag